jaa def jëf mbokk yi nuyooti nañu leen euh, noo ngi euh, fii ci euh, Gambian Talents TV fas yéene leen diktalaat programme mu ñaareelu fan bi fii ci fi nga xam ne rek mooy ci bureau PDOIS ñoo ngi nii nag di waaj a génn ngir rek dem fi nga xam ne nag moo di Bundung Six Junction gis ngeen honorable Halifa Sallah niki ni mu ko defee mi ngi ci biir otoom te nag mooy ñaareelu fanu. li nga xam ne rek mooy euh, presidential campaign taw bi nga xam ne démb la rek daal di officiel yi bi nga xamee ne IEC daal dina approuve euh, li nga xam ne rek mooy seen euh, itinéraire yi mooy ñoom ñëpp su defee nag PDOIS moom fii lay daal rek tàmbalee ni ki démb nuñ ko defee woon tàmbalee ko fa nga xamee ni moo di Ibo Town jaar ak Kanifing jaar Manjai jaar fa nga xamee ni mooy Joswang daal di rek mujjee fa nga xam ne moo di Latrikunda Jaman foofee nga xam ne sax fa lañ defee li nga xam mooy seen sport meeting Euh, nit ñi génnoon nag teewee ko xalifa daal di euh, siq ak ñoom ay waxtaan wax ak ñoom euh, ci li nga xam ne rek moo di seen li nga xam ne mooy programme bi ñu amal réew mi ñu tuddee ko rek li nga xam ne mooy manifesto mooy noonu loolu ngeen nekk di gis noonu gis ngeen am nañu taxaw seen buntu yi di daal di rek saafonteeg xalifa mi nga xam ne mi ngi romb ngir dem fa nga xam ne moo di bundung Six Johnson Euh, mbokk yi Mouhamed Mbaye gar mi nekk ci kaddu gi ngeen am tey ki nga xam ne moo di Hazary Diatta ba tey ci caméra woog beeg Moussa euh, ñu ngi ànd ak uh, Bitta Badji koo xam ne dinañu uh, fekk ci ci li nga xam ne mooy commentary ci soose ak ci li nga xam ne mooy jola uh, ci kanam rek dinaa ko bàyyeeg moom moom it mu daal di nuyo daal di rek tàmbali li nga xam ne moo di waxtaan bi waaye li ngeen di gis nii nag mooy convoy bi nga xam ne moo topp honorable Khalifa ngir rek mu dem. fi nga xam mu start li nga xam ne mooy ah, campagne am tey di defar caravane di dugg ci yenn gox yi tey nag programme bi nu mu demee dinañ dem fi nga xam ne moo di ah, Bundung Six Johnson bu nu fa dogee dem Bundung Bohol bu nu fa bu nu fa dogee daal di dem fi nga xam ne moo di ah, Bakote village bu nu fa jógee dinañu dem fa nga xam ne mooy London kona foofee sa marché ngelaw foofu dinañ fa amal li nga xam ne mooy meeting. Eh, gis nga nag eh, oto bi mi ngi taxaw jaay ngi waxtaan ak xalifa eh, ci biir dafa mel ni dafa fas yéene wàcc ubbil nañ ko bunt bi mi ngi ci biir di waxtaan ak gars yi ba ba tey noonu rek lay deme mbokk yi su ko defee nu waxaat leen li nga xam ne rek mooy programme mu honorable xalifa Sall ak PDOIS seen itinéraire yi ni ko rek fas yéene doxalee. ba di wax rek ni gis nga on the 16 la ñu war rek génn fii ci ah, Kombo ngir jëmale rek li nga xam ne ah, not North Bank Region tàmbali nag ah, ci biti ngir dem ci yeneen ci biir ci kaw gi gars yi di ko dex gi foofa la rek daal di jëm on the 16 waaye fi ñu tollagum ne nag foo des yi moom fii nii lay daal rek xewe muy ci KMC bi yaa ngi gis eh, démb fiñ ko dooree mooy fa nga xam ne ni mooy foofee ca eh, Ibo Town ba mu fa jógee mu jaar fa nga xam ne ni mooy Joswan jógee Joswan jaar Kanifing jógee Kanifing jaar Manjaay ba mu jógee Manjaay rek eh, ca la dem fa nga xam ne ni mooy Latrikunda Jamaan am fa ab waxtaan am solo mu seq ak ñoom dafa taxaw nag du ñàkk xëy na lu mu romb ci jàkka ji fekk nuy julli. muy wormaal li nga xam ne mooy waxtu wi moo tax it mu taxaw wala it bu fekkee daa am waaye def na ne loolu la ñu gën a njortu euh, ci li nga xam ne mooy euh, taxaw euh, bi nga xamee ni kii di honorable Khalifa Sall ah, mu ngi ko defagum ali ci manti am rek xamee naa ne bi ñu jógee fii rek fële lañ jëm muy bundung six Johnson daldi di rek continuer li nga xam ne rek mooy caravane Khalifa ngi mujjee wàcc fan la ay daal di jëm nag xamaguñ naka la euh, mu ngi noonu di euh, dox di dem honorable Halifa Sallah ngi noonu euh, di wàcc gaa yi ko topp mu ngi noonu di dem xam naa ne du ñàkk am na fu mu bëgg a dugg ngir rek daal di julli ba noppi ngir soog a mën a yeggali li nga xam ne mooy dox bi ndax dañoo ñëw ba fii. waxtu bi rek daal di ñuy ah, deb moo ngi noonu suko defee rek noonu mi ngi noonu su ko defee ñu daal di rek ah, ah, jox li nga xam ne mooy Binta mu daldi def commentaire yi ci li nga xam ne mooy ci waxko ci Joola su defee noonu kupalon ko jamane safu saf jawlom to tata jaar ka puru am halifa sala di biro yola yambom am sarakunda e eh, dede jobe am six junction yammo nyabunum pour ekane am programme nammo manjame no meti am campagne ba starte am this time ba starte pour election se ya bilonya december fort election pour ekane am presidential election ya no manjame simit son fu tok sano sani am um, election ya kan gambia pour echenye am um, A president mali maninkol am mbal konton na bi tolala mbe am fele jang halifa sala la toto nga funtina ala biro to sankata am six junction min be bundo ka campaign nyin ke molbe yalon ko am december 4th elections min kana december 4th wala am presidential election o nyinti pour ka president o choose um, kata state house um, ulijawulon baja halifa sala umma wale di motai umma bolonko wanambo ama kamera mana panga mumanja wana a uh, wanambo bolonko numanja ni mirago menal December 4th election ya bilonya yo kanenya pour um, yana yana kanenya pour bukana nya yo kana kuje nya be kane ya ende yo yo yo jaka komno kola pour e kane campagne uyu jijujuma simota saribe ñabbulonkoptu pour e jay am di campagne yana ayitenu ña pour e jay so simota sutu siriboña jijujuma simota si junjum si junjum wa acila awale ombo bolonkop wa taypo e mama balabu boli boli jujuk me balabu boli boli fang man kana bot ombo ma wale ombo bolonkop utu si am saribe pour e jadi campaign yola uyan manje yo kanna am pour December fort th election uya bilonya December fort th election uya bilonya pour yona jumu so nya yona je be kane am election uyu na jele ko tilo kandita bakele bake fongote a kandita le so halifa sala ñin jita muto ko naɓe komale mol banoma fana ni motol be min ɓe about normally pukatanying campaign yo nyinke me um, pour December 4th election o nyiminkana comme na foil nyami nalo neko every five years in the Gambia nka kele for change of um, president wolem uh, Halifa Sallah la fenkoti bi jijujuk benyeme bukana ko mon ko taate di burunga be beti jaat bala bu boli boli fam fam bare be nyeme bukana ku yetot am ko purtate ngir acila on ma wale banja watai po e mama e mama na miragu menon pop watai e mama fan jijujuk na miragum rek benyama bukana ko manku juma security am yoy po tate para ko ke tate manku jupe rek manku juk meti wo am intact budget wate ka e kanan benguru fitna wala wano sani kane security yoy pop yoy me taite jijujuk nyami bil ami di ande garmi ma bilare di ko palon ko surwa jajeuf eh, eh, binta baji mbokki no ngi leen di nuyuwaat bu baakha baakha baakh eh, di rafetlu and bi ngeen di and ak Gambian Talents TV ci PDOIS presidential campaign tour bi nga xam ne ni nga ko euh, sumbu euh, démb ginnaaw ba rek euh, IEC daal di fësale li nga xam ne mooy seen programme bi ñu war a toppatoo ngir rek ci ren jile nga xam ne ñi ngi dëgmal ci waat beneen élection muy rek December fourth presidential election bi nga xam ne ni léegi tey mu jot ay bés kese moo si rek des ci loo xam ne ñu ngi waroon xaar ay at Euh, PDOIS nag desul ci ginnaaw ndax dafa bokk ci jongante bi ànd ceeg euh, ki nga xam ne moom lañ bëgg a euh, teg ngir moom lañ teg sax bokk ngir mu di daagaan baatu askan wi muy honorable xalifa sala ngir rek mu bokk ci li nga xam ne mooy jongante yi njiitu réew mu ñuy def noonu nag lañ koy fas yéene dafa ak yéen wan leen lépp loo xamee ni PDOIS dina ko def gis nga ñoo ngi noonu war a génn waaye honorable Khalifa Sall dafa dellu ngir rek julli. Euh, euh, ngir mën a ñëw ñu continuer ndax dafa doon génn bu ñëwee ba yemoog li nga xam ne moo di euh, jàkka ji mu dégg li nga xam ne mooy nodd bi xam naa ne it mu jàpp ne baal mu war maal waxtu bi mu ci la wàcc daal di dem daal di rek julli ji waaye noo ngi waale fii dinañ leen wanagum lépp loo xam ne mi ngi fexe honorable su ko defee rek honorable ñu daal di waxtaan ak moom tuuti gis nañ ne liggéey bi yéen a ngi ci bopp ba léegi di mobilize. Euh, di organise li nga xam ne mooy euh, présidentielle campagne bi nga xam ne stade na démb ngeen bëgg rek lépp jaar yoon te ji euh, man nga nan nga may wax ci yan matukaay ngeen jël ngir rek campagne bi da xam nañ ne dina dem fo three to two to three weeks hmm. yan matukaay ngeen jël nga gis ne di ngeen mën a wër dëkk bi yëpp wala wër réew mi yëpp ba seen li nga xam ne mooy seen campagne agenda bi di ngeen ko mën a wasaare ba askan wi yëpp jot ci. waaw comme li ñoo def nii mooy house to house di dem si nit ñi. waaw su ko defee nañ dundaa ñoom sax li ñoo dëkka because dem bi rek reach out to the people uh, di nga won gaay ne ñun ñëpp a nekk si benn dundin bi boobu benn fànn la beneen fànn bi mooy dinañ dugga si biir dëkk bi si dex gi liñ ko waxee nii rek suñ fa duggee tam dinañ dem def fa suñu ay campagne so tàmbale nañ ko si bismillahi rahmani rahim fas nañ ko éni si alhamdulilahi rabil alamin waaye xalifa nekk na koo xam ne kenn du ko présenté si dëkk bi dëkk bi nag si lim mooy si ñaari yëf la si njub ak njubadi because ñëpp wane nañ seen boppa doy wane na doxalinam yeneen parti yëpp ñoo nuroo benn doxalin lañ am seen doxalin mooy seen taraanga ñun suñ doxalin mooy taraanga askan bi parce que yow mënuloo nekk si jaama sa dëkkandoor nekku loolu la ñu ooyee decentralization and devolution of powers soo riidee di local government act di nga ko fa gis PDOIS manifesto bi dafa ñëw pour yombal di implementation of the local government act understand nga doole dañ koo delloo si di bottom top approach waruñoo toog fële Banjul di xalaatal nit yi Serekunda wala nit yi Bundung waaye nit yi Bundung ñoo war a toog ñoom wër taabul bi xalaatal seen boobu ko ñoom ñoo xam seen jafe-jafe ñoo xam li ñoo dunda so ñu ngi woon nit yi di leen ba tey rek mooy comme niñ leen ko waxee njub la ak jubali 2016 ba tey ñëpp wane nañ seen boppa barka Dembo Ndiaye nomination gis nañ fi ñu fi rijet yëpp dem nañ wéeru ji fi nga xam ne ñoom foog nañ ne mun nañ faa dundee yaa ngi understand so na des si ñun ñu gis déggu nit ku déggu kii ku déggu la benn waxam mooy waxam moom la yaaga di wax soo waxee ñeneen ñu ngi laa wax 35 years 35 years Gambien si xamuñ woon luy di essence of ñu jël suñ euh, independence so lii mooy wax ji fu mu ne nii kenn du ko wax kenn kon jërëjëf. jaajëf euh, noo ngi koy gërëm bu baax euh, moom kansulo la bokk it ci ñi doxal li nga xam ne mooy ci campagne bi gis ngeen ne teewuñ ko lu yàgg ndax day dem ngir yeggali liggéey bi su ko defee rek fépp fu ñu war a dem bokk na ci ñuy coordinate ak ñuy téléphonte ñooña yëgal leen fi convoy bi toll ak li nga xam mooy euh, préparation bi fan lañ ci rek daal di euh, toll dinañ leen indil euh, interviews yu bari dinañ leen wanit lu bari ci programme bi nga xam ni tey lay am muy day two ñu war a dem Bundung six Johnson bu ñu jógee foofu dinañ dem fa nga xam ni mooy Bundung Bohol bu ñu jógee foofu Bakoteh village bu ñu jógee foofu daañu dem fa nga xam ni mooy foofee ca London Kona fa nga xam ne fa la ñu war amee sax li nga xam ne mooy seen mitin waaye fépp fu ñu ci dem rek ndax eh, gis ngeen ne ni ki ni mu ko defee démb léeg-léeg ci biir caravane bi muy def muy dootu doo eh, eh, meeting yu muy def maanaam di dugg di fekk nit ñi di saafante ñoom seen biir kër yi di waxtaan ak ñoom da ngay gis ne léeg-léeg buy romb dañu koy téye ngir mu waxtaan ak ñoom te fekk sax duy bokk ci li nga xam ne mooy itinéraire bi waaye ni ko xalifa di defee rek ci woyof gi ci dal gi ci yëg nit ñi da ngay gis ne day wàcc waxtaan ak ñoom Euh, noonu lay demee mbokk yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Mohamed Bay Garmi euh, tey euh, day two presidential campaign of PDOIS ñu ngi taxaw fi nga xam ne mooy Jos ci bureau fi nga xam ne mooy PDOIS fii ci Churchilltown dañ demoon nag bay génn yéen a gis convoy baa ngi taxawagum oto xalifa bi moo nekk nii waaye lu tax ñu daal di rek taxaw mooy xalifa moo wàcc Euh, ngir dem rek julli ji ndax dañ ñëw ba jub jàkka ji euh, ñu dégg noddu yi ci la rek daal di wax euh, ki ga xam ne mooy dawalkati woto bi ne ko mu taxaw mu daal di rek wàcc looloo tax te it ni ki ni ma ko waxee woon dem boo gisee mënuñ ko woon topp lu sori sori da ngay ne sunu caméra bi fu mu nekk ak niñ ko fixé ndax loolu moo tax tey jii ñu ngeen di mën a seetaan lii live waaye ni ñu leen ko waxee rek lépp loo xamee ni mënuñu koo jël ak caméra bi nga xam ne moo nekk di wane li nga xam mooy live stream bi dinañ leen ko jëlal ak caméra bi nga xam ne dafa nekk di record ngir rek ngeen mën ko rek daal di mën a am su ko defee it dinaa dikk ak yéen ci programme mu suba bi ndax bu tey bi euh, moom laa leen di limal euh, sànq Bundung Six euh, Johnson Bundung Bohol Bakoteh Village ak fi nga xamee ni mooy London Kona waaye naa leen limal bu suba bi ndax noonu laa koy baaxoo di defee ndax dañuy wax ne fàttali dina jëriñ ku fàtte lépp loo xam ne ni dina fi am rek su ko defee dinaa leen ko wax sama waa ji tamit dina ñëw waxtaan ak yéen it ci kàllaama li nga xam ne moo di Euh, ngir euh, wax leen li nga xam ne euh, mooy itinéraire bi xam naa ne bu fekkee mi ngi mi ngi ak moom mu ngi ci moom bu fekkee nekkul ak moom it mu dem jëli ko ngir mën koo xool ngir rek di leen mën a wan li nga xam ne mooy itinéraire bi si kala may sunu mbokk jola yooyu noonu la programme beeg naa dikkaat ak yéen ci histoire wu PDOIS PDOIS fu mu tàmbalee ba fu mu yegg si tey ndax boo xoolee 31 July 1986 la PDOIS daal di rek taxaw ginnaaw loolu. Eh, ki ko njëkk a eh, jiite nag ci PDOIS bokk na ci nga xam ne mooy honorable Sidia Jatta bokk na ci it moom moo njëkk a eh, gagné li nga xam ne mooy sit site ci turu PDOIS PDOIS nag bokk na ci élection yu bare bare bëri yoo xam ne mi ngi ci doon participer ci nguuri Jawara ci nguuru Yaya Jammeh ba ci sax nguuri ki nga xam ne mooy dis current président mu def ci liggéey bu ama am am solo boo xam ne bul Khalifa Sall euh, daal dina ko rek euh, euh, def ak PDOIS ak ki nga xam ne moo di Sidia Diarra ni kii ni ma leen ko waxee woon da ngay gis élection bu jot màggaayu PDOIS PDOIS ni muy màggee ci wàllu carte ni mu màggee ci wàllu mbooloo ni mu màggee ci wàllu policies and li nga xam ne mooy agendas da ngay gis ne kon parti la boo xam ne every year every election da ngay gis ne mi ngi gën di màgg su ko defee ni kii ni ma leen ko waxee defe naa yemb na su defee mu wax ak yéen ci jola Euh, wax leen tamit yu bari ci lan moo tax ñu nekk fii ak xalifa euh, fi mu nekkee euh, di julli bu noppee ñu continuer dem bundum si Johnson waaye moom dina leen daal di rek waxtaanee sama mbokk yi yéen ngi seetaan Gambian Talents TV Binta Badji. waa jërëjëf Garmi nam mana regu menon am fuken no kami di wan yoli yanu manje ko pupur be kane am to yoli uyu ku fuken ku noke noke banku regi am am ibo town ku noke noke ibo town ku jojo kane fin layout ku jojo manjay boku joomi fuken be kane am campaign yoli uy latiri kunda jaman tuku noke noken boba kammi am fuken fuken nan kammi tuesday jano kane am second day yoli an manje ko pure be am campaign yoli uye presidential japan ku joban konen bundun am 6 junction ko pur jaba pan am bohol ko pur jaba after Dipakunda, den Pankujo am bako Bakote Village, Kupuja Bakote Village, Pankujo konem am London kona pour e kane uru rek dano manje do kam am campagne yoli yang kombo me kane pour presidential election uye blonya yan manje do kam am december fort election e uyu panko nokende lup yano sani pour manku juk rek am um, mankuŋole ku sankendi bukana manku me wanku solan pankuŋole ku bawo podi bukana a juk jako ma hali a halifa fanan a walo jibibi be tate tanu manje loyoru di biro yola way ka sala ko kane pop mana wala pour e papare ja nabi manji jo am manji fabel am campagne yola uyen madi mandin ko na jele am halifa sala sala jita janne because atata salola kunun wolem ade wanti pukata nyin campagnola adunta ibotan kani finle out manja latri kunda jaman kaje ko ala campagnon nyimbe takanne bi am bilem ala seconde ti pukata ajele bundung bundum bohol bi abetala 6 junction dipakunda aning bakote aning am london kona wano sani jawan bomet e jay tate am pour rek um, the PDOS, the party leader oli akami am Halifa Sala, panji senu tu jat wano sa wani mambe man wano sa wani mambe juk am di be Gambia Talents TV pour éduquer. Jërëjëf. Jërëjëf euh, Binta Badji euh, ni ki ngeen ko gisee xalifa euh, ngi dugaat ci otoom ngir rek ñu wéyal ginnaaw bu ngir dem daal di rek jox boromam li nga xam ne moom jaam loolee nga war a def euh, ci bu waxtu julli jotee te ngay euh, euh, julit ndaxte it réew mi nu mu demee ku ci nekk fa nga bokk la ca war bu waxtu wa jotee da ngay wàcc def ko yàlla def na moom it muy jullit waxtu jullit jot mu wàcc julli su ko defee mbokk yi yéen a ngi si daan Gambian Talents TV nu continuer dem ak yéen ci li nga xam ne mooy ci li nga xam ne rek moo di. Euh, convoy bi nga xam mu ngi jëm euh, Bundung Six Junction ngir rek euh, presidential campaign bi nga xamé ni mu ngi start on the 9 of November that was Tuesday yesterday wara jeex on the second of nov on the second of December sorry la wara rek jeex ngir rek ñom ñu noppalu on the third on the fourth nak ñu daldi di continuer ca ballot box ya xol liggey bi ku ne liggey ba nga liggey ndax dañu la wuy waye waaye desul ginnaaw ben yoon mi ngi ci liggey bi ah, di doxal di wacc si gox ak goxaan yi di wacc ci koñ yi di wacc ci mbedd yi ah, eh, ngir rek ah, ngir rek waxtaan ak ñoom ci li nga xamé ni moy liñ am ak ñoom ci li nga xam moy seen agenda euh niki ni ma la koy euh newoon na la dafa yàgg euh, participer ci li nga xam ne mooy liggéeyu gaam boo xoolee gis nga am na euh, fii ci fi nga xam ne fii nag koñam la yaa ngi Churchill's Town euh, boori Serekunda te xam nga ni Khalifa gis nga ni mu ko ni ki ni ko doon defee rek dafa dafay wàcc fu ne mu wàcc di xaar di dox noonu lay demee gis nga Khalifa daal dina rek wàccaat ngir rek dugg fi nga xam ne mooy ci gaay yi foofu nuyuwanteeg ñoom euh, mi ngi noonu noonu rek la nekk di demee euh, mbokk yi Gambian Talents TV mi ngi euh, noonu Halifa ngi noonu di safanteeg ñoom di nuyuwanteeg ñoom gis nga noonu la nekk di demee honorable Halifa Sallah ni ki ni ma rek ki nga xam ne moo di ki nga xam ne mooy Khalifa euh, Sall ak PDOIS tàmbali li nga xam ne mooy seen li nga xam ne mooy euh, seen toobi euh, since démb noonu la su ko defee ñu continuer daañu rek continuer dam wax ak ñoom foofu dara du leen rëcc si noonu rek la nekk di di di non ñun dem fële ñoo ngi jégalu bu baax noonu lay demee mbokk yi xalifa ngi fële euh, di euh, waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy euh, askan wi su ko defee dinañ leen ko jéem a wan live bu mënul nekk it dinañ leen ko wanaat ndax suñ caméra bi mi ngi foofu di jël yenn kii su ko defee bu nu bu mbir mi jeexee rek ñu njëkk leen koo tegal ngeen seetaan ko ni ki niñ ko defee woon démb yi ñu mën a yi ñu mëntu wane live da ngay gis ne suñu caméra bi moom mi ngi koy jël euh, ngir euh, di leen ko wan euh, incha allah xalifa ngi foofu di waxtaan ak ña nga xam ne ñooy askan wi foofu su ko defee dara du leen rëcc ci mbir mi. waxu waxu mu en live ñu dem foofu tout su ko defee rek ñu daal di noonu rek lay demee ñu dem commercial break dan ñëwaat ci kanam. Thank you. mbokk non la su ko defee yéen ngi sitaan ba uh, Gambian Talents uh, TV uh, gis ngeen Halifa ngi fële di waxtaan ak ñi nga xam ne am di jamu yi foofu waxtaan la rek ndax ndax ndax dafay jaar ngir di waxtaan ak ñoom noonu rek lay demee mbokk yi gis nga sécurité bi ñu ngi aw ah, waxtaan ak gaay gi rek mbir mi jaar si yoon da nga gis ne depuis démb ñu ngi topp loola lu ñu war a wax la ndax euh, ren boo xoolee ab coppite am na bu bëree bari bari boo xoolee ren government bi euh, cam euh, candidat bu ne daal dinañ la rek allocatal sécurité bu doy boo xam ne ñoo lay topp throughout campaign su ko rek ñuy coordinate ci li nga xam ne euh, mooy convoi bi ngir mu jaar ci yoon ba nga xamee ni euh, benn jafe-jafe-jafe euh, du ci rek mën a am noonu rek la su ko defee ñu ngi fii ci Tossestown ngir ngir continuer ngir continuer rek waxtaane li nga xam ne mooy seen agenda biñ launch on Sunday on the seventh of on the 7th of uh, november uh, 2021 uh, ñu bari teewe woon ko ci groupe booba executive, waa PDOIS seen exécutif bi ñoom Sidia honorable Khalifa Sala, King nga xam ne flag bi nga People's Democratic Organization for Independence and Socialism Eh, ni ma len ko waxe won rek parti la bu yàgg bo xamne ne eh, am na 35 eh, years bokku na ci coalition yu bari buñ ci gënon rañe ràññee coalition 2016 ndax bobu mo muji nek di successful one ndax di successful in the sense ne mo dal di rek dal di génne président bu fi nekkoon muy di former regime of Yahya euh waye gis nga. muy naat naat boo xoolee xalifa ñu bari dañ doon dem ba foog ne naat mooy manaat parti la woon ndax euh, coalition boobu ci programme ci xalaat ci xel yi nga xam ne amoon na ci muy rek euh, National Alliance euh, for Democratic and Development muy naat boo xam ne loolu 2005 lañ ko taxawloon ak li nga xam ne it mooy coalition 16 comme ni ki ni ma leen ko waxee PDOIS yooyu bokk na ci political Euh, activities wala political euh, participation yoo xam ne ci history of Gambia euh, bokk na ci participate na dox na ci ay jéego ba tey ñu am li nga xam ne mooy regime change through to the through the box nga xam ne ñoom loolu lañ yàgg advocate loolu lañ yàgg waxtaane loolu lañ yàgg siwal loolu lañ yàgg bind loolu lañ yàgg wax boo xoolee seen parti bi ba mu taxawee nag People's Democratic Organisation Uh, for Independence and Socialism histoire bi 1986 uh, 31st hmm, uh, July ngeen gis ne ñëw nañ ba initially Deputy Dawes no official leader until December 1997 when Sidia Jatta was chosen as its first leader maanaam demoon na ba nga xamee ni ci taxaw na lu yàgg te amagul woon leader waaye dem na ba ci jamono yoo xam ne muy 1997 Sira Diatta moo nekkoon ki njëkk a jiite mooy ki njëkk a jiite in 19 in July 1987 uh, nga gis ne nekkoon nañ ci ay uh, jafe-jafe uh, yu bari ci former regime of Jawara waaye gis nga ne déggoo tuuti dat ba nga gis ne gën noo taxaw gën nañoo wane seen bopp gën nañoo jëmal seen bopp ci li nga xamee ni mooy taxawaayu PDOIS ci Gambia waaye gis nañ ne ci fànn bépp ci même ci démocratie bi nga xam ne ñu ko doon xeex ndax bo xoolee tey euh, PDOIS euh, dina kontaan ci gis nu Gambia di doxee ci wàllu démocratie ni muy màggee ndax boo xoolee euh, néewaana campagne jot ñu jox ay ay ay policiers ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoo di opposition crew néewaana waaye ren gis nga nu mu fosee indi nañ sécurité bu doy indi ñaari pick yoo xam ne yëpp dañ leen euh, duy ba mu fees ak i euh, PIU officers ñu nekk ànd bokk ci convoy bi nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy euh, presidential convoy yi kon loolu da nga gis ne ki ci gën a wiin ki ci gën a am ndam bokk na ci PDOIS mi doon xeex ne changes dafa war am waaye changes through di ballot box te loolu 2016 la xew ginnaaw boy moom Khalifa ànd seeg PDOIS bokk ci coalition 2016 boobu. bokk ci ñu ko initier waaye bokk ci ñi ci gën a fësoon ba tax ne gis nañ ne tey jii lii nii lañ am comme result waaye nag ñoom jàpp nañ ba tey ne léegi 2016 it was regime change but this 2021 it has to be system change waaw maanaam doxalin bu rek boo xam ne dafa war a changer doxalin boo xam ne dafa war a soppeeku doxalin boo xam ne e, Gambien si seen alal ñoo ko war a moom Gambien si ci wàllu napp gi kenn waru leen ci ëppale koo xam ne dëkkoo fi eh, lu dul ci digalu eh, gambien yi waaye ci wàllu industrie maanaam loo loo loo def loo defer maanaam ci wàllu loo ji eh, ci bu ñoree maanaam gàncax gi ci wàllu tamaate ñu ñu tabax ay usines yu defar ay usines yoo xam ne dinañ mën a process that tomato into a finished good boo xam ne fii lañ koy defaree fii lañ koy jaayee bu wala sax ñeneen ñëw jéggaane jéggaane ko nga xam ne Gambie dina am lu mu ci mën a rek gagné dina am lu ci mën a win ci kom boo xam ne day desaat ci euh, gam loolu wax na ko waaye taxawal ay kees maanaam nee na réew bu amul euh, kër bu amul dépasse dafay tas euh, dëkk bu amul dépasse tas réew bu amul dépasse tas te nee na ni kër di doxee noonu la réew di doxee noonu la kër di doxee wala noonu la war a doxee ndax ñoom jàpp nañ ne si seen transformative agenda amal nañ ci li nga xam ne mooy tax doxalin boo xam ne ci wàllu nu réew di doxee boo xamee ne ci wàllu dépense mooy dëkk bu nekk dinañ fa fexe seen VDC euh, mooy village development committee mooy benn mbootaay la boo xam ne euh, dañuy am kees euh, lépp loo xam ne koom la boo xam ne ñoom ñoo ko defar dañ koy def ci kees googa waaye nee na da ngay dem ci dëkk yi wër na ci dëkk yëpp ci fi nga xam ne mooy gam Gàmbi yëpp daj na fépp liñ ko niñ koy waxee carton ba koy na fu nekk dem na ci waaye foo ci dem du am li nga xam ne mooy village development committee boo xam ne dina am kees dina am dara mu nag ñoom seen nguur bu ñu ñëwee dinañ fexe advocate système boobu nga xam ne dëkk bu ne dafay am li nga xam ne moo di euh, kees euh, dëkk bu ne dafay am li nga xam ne ni moo di euh, kees boo xam ne bu bu bu soxlaa dara fa dem jëlee ko maanaam bu soxlaa yoon ne dañ war a defar suñu yoon bi yoon bi day dafa yàqu bu nawet bi ñëwee kenn du mën a jàll oto du mën a ñëw su ko defee ñu ne ah nañ dem ci kees gi am na dara ñu génne bu fekkee la nekk sa kees ga matul ñu daal di ne ah kon léegi nañ tax la dem ca kees ba nga xam ne moo nekk ci gox bi Euh, muy li nga xam ne mooy moom la ñuy wax district bu demee ci district ba ñu ne ah euh, li nga xam ne moo nekk ci district bi day matul mënuñoo jàppale ñu ne ah léegi nag nañ dem ca tund ba tund mooy région bu demee ci région ba ca li nga xam ne mooy kees ga ñu ne ah kees gi day ah, matul ñu ne nag kon nag nañ dem ca kees gu mag ba muy li nga xam ne mooy keesu ah, fële ca ah, muy gi bi noonu rek lay nekk di demee su ko defee ma bàyyi kàddu gi ak ki nga xam ne mooy ma bàyyi kàddu gi nga xam ne mooy Binta Badji Euh, mu ñëw rek wax ak yéen ci euh, kalamay soose ak jola waa jërëjëf garmi am ñu ngi nii gis yeneen nit ñu sol am PDOIS seen am seen t-shirt bi dañoo daal di gaay try rek pour wax ak gaay salaamaaleykum <laughs> gis nañ ne dal gaay ñu ngi bañ a wax ma bi salaamaaleykum naa nang fi tur bu ne Hadi Touré am Hadi Touré gis nañ la tey Halifa Sallah mu ngi romba yaa ngi taxaw tey fii nii lan moo ko waral sama xol moo fees dama bëgg xalifa ba sama xol bi fees si xalifa sama xol dafa jeex léegi si xalifa bu baax a baax a baax xalifa maa ko ñaana yàlla yàlla ko xam moo ñu bind yàlla naka yàlla teg si toogu bu baax a baax waa mun nga ñëwal lu tuuti li nga xam ne xam nga ko si xalifa ma ne mun nga ñëwal lu tuuti li nga xam ne ni xam nga ko si xalifa lu ma xam si xalifa xalifa xam naa ko si xam diina xalifa lislaam la xalifa baax na xalifa mën naa yore réew mi xalifa ku am yërmande si réew mi la xalifa ku jàngala moom laa xam nag si xalifa dëgg dëgg xalifa baax na xalifa am na yërmande xalifa mën naa yore réew mi gis nañ ne bëgg nag mu yore réew mi moom lañ bëgg nag mën a amee réew mi moo mën a jëmal Gambia moo mën a taxaw Gambia fii parce que xalifa ku am yërmande si réew mi ku am yërmande si jigéen ñi la moom lañ bëgg yàlla na ko fi yàlla teg yàlla na ko fi yàlla taaj yàlla na ko fi yàlla taal si barke salaatu Faatiha si barke borom Touba Mbacke. gis nañ ne ah, parti bëri nañ Gambia ja am cuusuloo benn political party lu am budut PD ah, PDOIS bi ni di Halifa Sallah lan moo ko waral. man doy dafa ma neex sama xol bi rek doy dafa ma nekk sama xol bi loolu moo tax di ba ma depuis ba ma nekkee xale ba bis yàlla tey man ak doy sama xel bi ma ñëw fii ba tey man ak doy la dafa nekk si sama xol bi si yàlla tax dama ko bëgg sa yàlla tax waaw jërëjëf waa ma ne ko ñoo dégg loolu noonu si suñu yaay boobu noonu lu mu jot a wax waaye yaa booy salaamaaleykum <laughs> naa may bi tur man Rohi la Rohi am yow loo gis tey am si PDOIS bi ni ba mu war a tey nga war a bay sa soxla yëpp tey di génn si fii nii tey di war a am nekk fii di support kii di Halifa Sallah te la moo ko war a waaw PDOIS daal dañ xool Gambia daal PDOIS moo ko mën a yobu kanam daal because dañ fi gis yu bari yoo xam ne PDOIS rek lañ xam ne moo nekk parti boo xam ne nii war na mun a yóbbu Gambia mu dem si kanam because léegi luñ nekk di experience Gambia fii nii nii dafa hard trop especially si ñun youth si nga xam ne right now ñu ngi toog da ngaa gis koo xam ne dem na ba jaaxal skulam sax liggéey jànga na ba jànga kayam fu mu em mënut am liggéey exemple man la maa ngi toog si kër gi di toog a añ di right now waroon na maa mën a fekk feneen am naa knowledge bi am naa papers waaye pour ma mun a génn sax dem liggéey war ma ko mun a am because of lan Gambia munuñ maa provider liggéey boo xam ne war na maa mun a satisfy amaaguñ ba tey koo xam ne war na mun a yóbbu Gambia da nga xam ne doomi Gambia yi dinañ liggéey ba mun a am liggéey Gambia ñu doxal Gambia ñu am luñ soxla si Gambia xoolal léegi marché bi ñu ñooy dem marché xoolal difficulties yi ñooy fees si marché Dengar dia masih sa yenen saya sedih pas do dia mëna jalan lohan deh tapi lay xamal sa ndugal danga ñëw ci kër yenen say nga tok di joy ngir difficulté ci nga investi so dia lagi video as dem memang mesti karena kanam mu ñu mëna liggéey ak mom Gambia dem kanam um, ñun loolu lay soxla doy lay soxla soxla yeen yeen gëm ngeen ne am doy su toogee lii li ngeen nekk di wax ni yëpp dina change waaw doy gëm nañ ko because ñaan yaaga naa toppa doy bi bi moo doon dem school ba balaa ma doon am jëkkër maa ngi graduate 2013 ba ma ñëw sëy ba 2021 laa sëy ba tey maa ngi si sëy gëm naa ne doy moo nekk parti boo xam ne moo mun a yaaboo Gambia kanam moo mun a defal Gambia luñ bëgg te nañ support doy génn ànd doy mu toog si toogu bi ñu liggéey yóbbu Gambia kanam loolu lañ soxla. waaw mbokk yi ñoo déggal loolu ko ñoo déggal loolu noonu ne ñoom am Halifa Sallah rek la gay ne moo mun a yóbbu Gambia bi kanam sis na maa tur bi man Fulagal Ba Lindas wayo telan tey lan moo la wara te support khalifa Sallah allah dama ko buga yaguma buma hame affaire politique way dama ko bula xam ne Gambia moko yobu kana parce que kuma ngeka lay khalifa laaj moy draft constitution bu gay MP yi indi woon lebal sen bopp mu sam Gambia mu rek Gambia ci loolu soko selo khalifa Salam. Sallah turam sa happiness la hej moy happiness la Salla moom es bi moom indi nañu système change soo ku ko toppul rek xamul lu mu bugal njabootam ëllëg ñoo dégg loolu noonu dañoo gis am Halifa Sallah mu ngi ni fii am di nuyuwante ak nit yi balanku jamaat ula jamaatu wanku rek ñaa am kuwe am Halifa Sallah kooku fim fi métti am Halifa Sallah ci la ngola jitu Gambia jamu ci mo wanko mbo e ñi di fetal mu muy wannu bal ya doo seen morom ñi di fetal mu muy wannu bal ya doo seen morom sal ngari sa baay di jamba doo saw doo xare doo xare yaay doo daw xare doo xare doo xare yaay doo daw sa baay di jamba doo daw xare ku sa baay di jamba doo daw Khalifa Sala ku sa baay di jamba doo daw xare oo oh, léegi yaa defal nit ñi ba nit ñi dalee yow yaa toog defal nit ñi Salla Ngare nit ñi daw lañ ba sonn yow yaa defal nit ñi toog waaw waaw yaa defal nit ñi xoli yaa defal nit ñi xoli ñëpp daw nañ yaa toog Salla Ngare ñëpp daw nañ yaa toog système change système change système change dañ bëgg a change dëkk bi dañ bëgg a change ñu nekk si jàmm Salla Ngare

na ko am na ndamal jël li mu am ndamal jël am nga commencé law yal na la yàlla taaj yal na la yàlla taaj barke Islam Faati Johnson bi ñu ngi dem ci Johnson bi pour wax waane foog ma sànni ñaari kàddu bëgg naa ngeen déglu bu baax defal musique bi mu dem foola rek wee commune ci liggéey biñ nekk fi mu nekk liggéey réew la yéen da a xëy suba teel uti loo leen war a jox njaboot gi ci kër gi soo leen nasaxoon ni kon njoboot gi génn nañu àddina ci seen ñaq ak seen doole moo tax àddina nekk fi ba ñu ne ñu taxawee ni sorol fii nga mën a use mic bi. ah ñoom ñoom dinañ ko mën a dégg fii. ah waaw yéen da ngeen a toog fii suñu usee mic bi di ngeen dégg wax ji mu nekk benn wax léegi waaw toog leen ngeen déglu bu baax. waaw mbokk ah, mbokk yi ñoo dégg loolu dafa dem taxaw fële na le use um, use bi pour am um, ñëpp mun a déggal lu mu nekk di wax. right be jobe use um, mic pour bukana tu mangol ku jam wanambo wanambom am um, ere ne ndey dafa ëmb doom ju weer dal ko indi ñu tuddee ko ñaanal ko pour mu barke mun a jëriñ boppam fompa rongo ñi kilifaam te jëriñ réew subaak ngoon ndey di jóg di daano nekk ci marché yi nekk ci mbedd yi yaakaar ne xale bi dina jàng mu dem ba amatul lu mu fayale xale boobu mu génn ci mbedd mi di ut nu mu mun a tekkee mu jën tal ga mu dugg ci yu bari moo xam ne su ji jéexee ñaan yàlla sax ne mu jur ndey toog bay bañ doom jëmu jur te ku nekk xam na ne benn nit judduwul bon àddina àddina ci la nit di jàngee mbon ci di jàngee mbaax bon nag nañ liggéey àddina ñëpp a jàngee mbaax wande réew itam dafa am warugal ci loolu war la war a tekkee loo liggéey liggéey ci sa biir néeg du feeñ ci njaboot su ko defee ne ji moo sëyul ñu ada juróom benn mu ngi mel nii dara mun cee sot déglu leen doxalin waa dina leer 23 billion mooy 23 000 millions léegi ñaar fukki junne million ñetti junne million moom ngeen war a dénkaane ci ki ngeen a woteel soo leen ko ko dénki lan la nar a defar réew mi ngeen ko ko dénk ngeen ñu ndax interest ba da ngeen a jël di teg kenn sotti teg kenn sotti soo sottee nga dugal ko ci business ndax nga a yokk sa am-am ñun ñu ne alal di réew yi def ñëpp a ko moom nañ ko xaaj xaaj boo xam ne xaajit bi dinañ ko def mu nekk auditeur nga xam ne soo nekkee ka nga soxla engrais jiwu machine ñu jox la ca nga liggéey nga nekk ci jox la ca nga liggéey ci kees gi te soo nekkee borom attaques yi mel ni ñu nekk ci garage gis ngeen ni ñoo enoo machine ak ni mu diisee te am na njumtuwaay yoo xam ne da ngaa def nii rek mu bon nag dinañ mun a jël ci kees googu jënd njumtuwaay yooyu seen liggéey gën a yomb ci moom kii xarbante noonu kii jéem a jaayante noonu. ki bugg a jël milling machine bi olbati li nga xam ne mooy suñu dugub bi pour mu nekk dugub moom itam noonu pour mu nekk eh, furiñ moom itam noonu ki bugg jël furiñ boobu pour lakk mburu noonu su ko defee ku nekk am na foo mun a jàpp fa ngaa jàpp noonu nag mooy tax kër gi itam mun a jëm kanam coono génn ci kër su ko defee soo amee di nga ne léegi bugg naa néeg bi gën a baax fekk am na compagnie bu taxawal ne léegi mun ngaa sampal ni ñi néeg boo xam ne bi du seer ñuy tey ba bañ koo moom su ko defee nank nank kër yi itam di soppee am am bi di yokk li ngeen a ooyee dëkki tubaab yi dara dox ba lu dul demee nii léegi nag naka lañ war a toppatooyee gerte wax naa leen ne kër gu amul dépasse tax bon nag fii woot la woot am na développement comité dëkk am nañ développement comité wanda doo fa fekk aranke tey këri tey bitik yi tey atelier tey garage yi yëpp tey ñun dañu ne soo leen buggee yokk ne nekk ci seen gox bi boobu yëpp dafa war a nekk ci aranke si woot bi defee at bu bi dina toog ak waa woot bi ñu waxtaan ndax yooni far ndax communauté sant la ñoo defar ndax place bu jàng ñoo xale yi pour ñu am métier woote wërëb lan moo ko soxlaal ñu war faa dugal alal pour ñu ko su ne manqué la nag ñu te ñuy faa dugal am paat boo xam ne bi dañ ko xaaj paat bi dem ci région si paat ba dem ci municipalité su ko defee loolu pour ndol the yeah, if uh, been Thank you. waaw jaa ngeen jëf mbokk yi niki ni ngeen ko gisee noo ngi ba tey uh, ci yoon bi di dem uh, ni ko Halifa di defee uh, di wàcc di saafanteeg askan wi eh, di dox di def li nga xam ne rek mooy door to door meeting ci seen néeg yi seen kër yi ci mbedd mi ci boutique yi ci koñ yi ci bërëb place liggéeyukaay di waxtaan ak ñoom mu doon lu mel ni ab caravane rek. Eh, su ko defee nag eh, fi nga xam ne dina fa am meeting muy London Corner eh, su ngoon jotee ñu daal di koy ñu daal di ko fay defee noonu rek lay nekk di demee waaye fi mu toll nii nag ñu ngi ba tey rek fa nga xam ne mooy fii ci Serekunda war a jëm rek Bundung Six Johnson fële ñuy dem ni waaye gis nga Halifa moom ma nga ca kanam dugg ci biir kër yi. léegi ni ngi leen ko waxee rek euh, sunu euh, caméra ba ma fa ngir rek jël yooyu waaye ñun nag ñoo ngi leen di wanaale li xew ci yoon bi nii euh, fekk fa muy toog di def li nga xam mooy mitinam boobaa dinañ ko def wane live ngeen gis ko ni ki niñ ko defee waale ni lañ wan convoy bi di leen wan nit ñi nu ñuy taxawee fi nga xam ne nag xalifa mi ngi fay dugg duñ mën a wàcc caméra bi di leen ko wan live waaye ndax euh, euh, umpale wu leen ne euh, live kuréel moo koy def te duñ mën a gàddu bagage yi di daw ak moom ci loolu mooy tax duñu mën a dem waaye di nga gis ne suñu ndaw ñi ñoom ña nga fa ak caméra bi di doxal di wan di jël li nga xam ne moo fa xew highlights yi nga xam ne dinañ ko wane su de tout jeexee ni ngi ko defee woon démb rek nañ ko continuer waaye fi mu toll nii dinañ leen wanagum li xew agum file ba keroog ñuy àgg. London koona euh, euh, euh, fa nga xamee ne mitin fa lañ koy defee waaye balaa mitin bi di xew nag dinañ jaar ci barab yu baree baree bari ci maa ngi la doon wax ci xeex bi PDOIS yàgg di xeex ci wàllu démocratie ci wàllu système change du ren rek waaye boo xoolee defe naa ne ci xeex boobu am la coppite yu bari yoo xam ne am na ci ndax euh, ren élection ren bi euh, dina am lu bari lu lu wane ndax boo xoolee 2016 euh, rek bi nga xam ne moo gën a recent da ngay gis ne how many candidates ñoo doon contexte dafa mel ni ñaari candidate la woon ak 2016 ak coalition bi muy three kon loolu daf lay wan lu li nga xam ne mooy màggaayu démocratie waaye ci xeex bi nga xam ne euh, PDOIS yàgg nañ di ko xeex ndax boo xoolee PDOIS yàgg na di wax ne only euh, the people can change euh, the a regime only people can change a regime yàgg nañ di wax lool from the wala di the ballot box yooyu la PDOIS yàgg di gëm maanaam askan wi rek ñoo mën a coppi xarxanamu réew ci jaaree ko ci li nga xam ne mooy bañ gàcce Euh, muy fa ñuy tànnee ak fa ñuy fale loolu nag lu mu yàgg a wax la euh, euh, ba mu nekkee li nga xam ne mooy ci li nga xam mooy PDOIS since 1986 ñu sos ko ban li nga xam ne mooy Sidia Jatta jaar na fa daal di nekk di first leader of PDOIS lead ko nekk tamit di first parlementaire li nga xam ne mooy MP Euh, te mu nekk di first person boo xam ne moo njëkk a win a seat ah euh, ci parliamentary election euh, under the ticket of PDOIS moom honorable Sidia Jatta tey jii da ngay gis ne ngi ci convoy bi ànd ak Khalifa da ngay gis ne how consistent this party is and then the members of the parties even the executive some of them ku ci mel ni honorable Khalifa Sallah ku ci mel ni Sidia Jatta you name them Euh, loolu dafa am lu bëree bare bëri euh, li nga xam ne daf koy rek daal di euh, di wane gis nga noonu convoy baa ngi noonu dem xalifa mi ngi ci kanam di dox Khalifa Sala mi ngi ci kanam di dox di dem ngir rek di waxtaan ak askan wi ci li nga xam ne moo nekk di di di xew ci jamono jile muy campagne waaye di jaar ci li nga xam ne mooy ci Trudeau manifesto to talk to the people parce que boo xoolee system change ci manifesto bi la nekk ah, ci doxalin yu bëri yoo xam ne am nañ ko maa ngi la ko doon wax ci wàllu ay programme yu ñu teg yu ci mel ni ah, am am réew mu ne am sa kees gox bu ne am sa kees réew mi am kees gu mag goo xam ne gox yi seen kees yi buñ mënta daal di rek provide the basic eh, needs wala the basic eh, things that that particular ah, district or or village needs Uh, and then the uh, uh, li nga xam ne mooy that PDOIS that village development committee mën to provide li nga xam ne mooy loolu di nga gis ne kees gi mooy maanaam li ñu wax arañ kees boo xam ne ñoom ñoom nguur gi dina ko daal di rek teg loo xam ne da nga gis ne koomu réew mi yëpp fa lay dajaloo fa lay dajaloo su ko defee lépp luñ bëgg a defar ci yoon ci ci dëkk yu amul kuréen ci ci parce que boo xoolee ci biir agenda bi da ci gis lu ñuy wax housing li nga xam ne mooy euh, euh, euh, finance housing finance maanaam dina am ay dëkkuwaay yoo xam ne ñoom nguur gi nooy am nu ñu lëkkalool tabax ko bu ko tabaxee lebal ko doomi dëkk bi doomi réew mi su ko defee ñoom it ñu koy xayma ñaata lañ koy faye ba kare muy daal di rek mat su ko defee am na waxee ci wàllu njàng mi it wax ne boo demee Gambia collège da ngay gis ne. Euh, ña fa nekk di jàng muy student si euh, dañuy jàng di fay ñu néew la ñuy jox li nga xam ne mooy scholarship euh, ñu ci ëpp dañuy fay buñ bëggee jàng mu ne loolu da ngay gis ne bu fekkee ñëpp dañ bëgg def yoonal ñëpp dañ bëgg a jubal faaw ñuy xool ni ñu doxalee lu mel noonu ndax boo waxee nag damay jubal te am na ci benn pàcc ci constitution réew mi fu muy waxee ne ngir nga daal di jàng loolu dafa war a nekk li nga xam ne mooy basic education li nga xam ne right la to all citizen rawatina ki nga xam ne moom dafa war a jàngale ji ki nga xam ne dafa war a jàngale ji muy jàng ngir dem jàngale ji kooku boo ko fayoo ko mu war a ñëwaat jàngale ji na loolu ñoom seen nguur euh, bu da bu taxawee di nga gis ne dinañ ko daal di rek euh, dàq ba xam ne képp koo xam ne da bëgg a jàngale ji euh, di nga daal di doo fay dara te di nga jàng ba pare dem jàngale ji wàllu université tamit wax na li nga xam ne moom la ci rek daal di am loolu it wax na ci wax na ci it li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy ci wàllu li nga xam mooy démocratie ni ñu koy taxawaxalee ci réew mi ba xam ne euh, euh, li nga xam ne mooy political parties yi euh, li nga xam ne mooy askan wi li nga xam ne mooy képp koo xam ne doomi réew mi nga di nga gis sa bopp bu baax a baax a baax ci nguur googu wax na it ne fexe ci wàllu système change bokk na ci li nga xam ne mooy time limit maanaam euh, Gambie war a ñëw bokk ci réew moo xam ne élection every élection da ngay gis ne président boo xam ne yaa fi nekkoon maanaam di incumbent euh, first term euh, bu jeexee muy five years ama amaan na droit kon am na am na di constitutional constitutional right pour war a mën a rek taxawaat waaye bu taxawaatee da ngay gis ne amatul right pour taxawaat kon da ngay gis ne term limit boobu nee na ñoom seen système mi ngi koy advocate te buñ nekkee buñ ñëwee into power da ngay gis ne fexe nañ ba daal di tëral loolu loolu it da ngay gis ne bokk na ci su ko defee rek xalifa ah, fi mu taxaw ni ah, dafay ah, mel nii dafa dafa nekk di di mooy nonu xalifa gi noonu di taxaw du ñàkk mu ngi noonu di nuyuwante su ko defee moo ngi moo ngi noonu di nuyuwante ak ñi nga xam ne ñooy di European Union ñi nga xam ne dañ ñëw ngir rek di bàyyi xel di saytu élection yi ni muy rek daal di demee Euh, moo ngi noonu euh, di dam ngir dugg nag léegi ci biir otoom ginnaaw ba mu euh, savanteeg ñoom boo xoolee élection bi lu ci jaxasoo moo bëri am nañ fi domestic observers am nañ fi li nga xam mooy European observers domestic observer mooy élection observer ñi nga xam ne ci réew mi fii lañ dëkk di observe te da nga gis ne fii lañ nekk nekk kuréel goo xam ne ñooy saytu di xool doxalinu élection bi waaye am nañ tamit ñoo xam ne tugal lañ jógee ñu ci mel ni ñi nga xam ne ñooy EU e Euh, euh, mooy European observers ñoo xam ne dañ ñëw fii ngir observe euh, saytu ni nga xam ne élection yi dina ko rek daal di doxalee kon di la wax ne ba tey ci wàllu système bi ñi doon advocate muy waa PDOIS dañuy gis ne ren jii nii tàmbali nañ di ci fayeku bu baax a baax a baax ndaxte yàgg nañ di wax ne élection warul doon li nga xam ne mooy battle of xam mooy battle insult battle of tribes but battle of ideas Euh, battle of li nga xam ne mooy agendas euh, battle of li nga xam ne mooy manifestos euh, li nga xam ne mooy loolu la nekkoon di wax waaye tamit ñu koy def ci di incumbent xa war a xam tamit ne warulu jàpp wala di kon kon condamné kenn ci li nga xam ne mooy mu ngi bëgg a perform his or civic rights muy wàllu carte wàllu express fan la féete loolu yëpp da ngay gis ne ñoom ñu ngi koy daal di rek di advocate ci lu yàgg su defee mbokk yi gis ngeen xalifa am na fu mu dugg euh, boo xoolee yooyu caméraman yëpp a ngi taxaw euh, ngir xaar mu dugg foofu daal di ñëw su ko defee euh, ñu jéem a dem waxtaan ak ki nga xam mooy jaaxa Doucouré bu mënee possible rek ñu jéem a def loolu mën a ak moom ci gis-gisam ci élection bi ni mu nekk di demee noonu rek su ko defee jaaxa yaa ngi uh, live uh, Gambian Talents TV uh, tey moo nekk deetu ci li nga xam ne mooy campagne bi sis ñu door tey nag nga teel a ñëw ànd ak ñi nga xam ne mooy PDOIS Euh, ngir rek euh, gunge leen bok ci li nga xam ne mooy campagne for system change 2021 tey soo fa euh, nan nga gisee li nga xam ne mooy dootutoo meeting yi nga xam ne yéen a ngi ko start di ko def te mu bokk ci seen stratégie di jaar ci nit ñi tey nan nga gisee nit ñi expression bi ñuy am di sign li nga xam mooy system change system change all out soo dafa mel ne nit ñi pare nañ pour wuyu leen jaar no basically man lu ma gis mooy ne Gambien si dañ soxla rek ku ñëw fekkasi leen waxtaan ak ñoom nga won leen lan mooy seen bos ngir Oncle Halifa nu mu ko dee waxee mooy ko xamul luy sa bos su keneen ñëwee jël ko kon yow amuloo dara looy wax te li ma déggee waxtaan yi ak li gis nit yi seen réaction xam naa ne nit yi dinañ ñu man awma ñaari xel si suma gom-gom ne Halifa Sallah mun naa jël réew mi te mun naa win élection te loolu lu ma gëm la te dama gëm ne loolu mooy lu war am Gambia pour Gambia advance nuñ bëggee pour mu advance te xam naa ne suñ wotelut koo ne éenee nañu coono bi ñun ñoo koo yëg suñ yaay yi ak suñ doom te dafa jot pour Gambia ñu bañ a votal koo ne dañ teg ne moom mooy gagné aw suma bootu tey sa yéen doo leen mun a gañe loolu ñun ñoo ko dugal suñ xel bi te ñun ñoo ko mun a génnee suñ xel ñun ñoo mun a dugal ñit state house te ñun ñoo mun a génnee ñit state house te tey suñ waxee ne Gambia ba Sallah wakkati dëgg la nit ku baax la mun nañ koo yóbbu state house suñ karta mooy suñ doole euh, ñu gis ne ci wàllu li nga xam ne mooy régime through uh, the ballot box loolu uh, PDOIS so succeed na ko mooy ba mu àndee si coalition 2016 léegi li mu bëgg a succeed mooy li nga xam mooy système change ngir gis jàpp nañ ne régime change na ba still now the same système moo fi nekk so nan la PDOIS taxawee uh, ngir indi ci wàllu stratégie ngir gis ne fexe na ba askan wi wuy waat ko ci boobu système change ba ñu mën koo jox réew mi this year xam nga ñun lu tax bëgguñ régime change mooy soo defee régime change kana mirek nga changer sanje changer wuloo doxalin bi te li am solo mooy Gambia ñu changer suñ doxalin te doxalin boobu noonu suñ ko changer dina gis ne coona mi nekk si kaw jigéen ñi dina wàññeeku ngir duñ leen jox xaalis rek pour nu ñoo growee seen vegetable si waaye nuñ koo processé ak seen doom yi nu si technologie ak science ak nuñ koo yombale loolu yëpp bokk na si loo xamante ne Halifa Sallah su toog de ñun dinañ liggéey pour make sure ne loolu am na te ñu nit dimbale nañu xam-xam yuñ jot a am si biti ak liggéey yuñ fa jot a def dinañ jël loolu ñëw teg ko si kawam support Gambia dooleel ñu ne ñu ne jaaxa bàyyi liggéey bi Amérique ñëw ngir campagne euh, fo PDOS ñu ne ak foofu nu mu neexee nga bàyyi lool lépp ñëw fii ndax da nga gis any extra hope boo xam ne mais bi gisuñu ko ci biir di si di moo tax nga bàyyi liggéey bi yëpp fële wala di love that you have for Gambia mooy pour loolu mu mun a am su amutee ñu xam ne gardien yi ñoo ñu fa tegut waaye ñun luñ mun man su ma tëddee guddi dinaa mun a nelaw ngir xam naa ne jaayuma suma ngor ngir li ma foog ne loolu laa war a def ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu laa gis ñuy def man li ma gëm ne mooy dëgg ak ki ma gëm ne moo mun a yóbbu dëkk bi su ma dee sax dinaa dee si gannaaw kooku waaye du ma jógee si dëkk boobu gis nañ ne système change bi am na seen transformative agenda bi nga xam ne loñ ngeen ko pencami xool ah, ah, seven of ah, november muy Sunday last Sunday gis nañ am na ci programme yu bëri ci parce que three page la te man read naa ko so mu gis ne programme yu bëri am ci and policies action plans objectives and all that stuff ñu gis ne lu bëri la est ce que yéen foog ngeen ne bu fekkee jot haliba hanga suwa hene eh, am nañ interest pour nekk président dañu tamit am nañ xelaatam soo moom liggéey bum door keneen mun na ko mun a jekkale su dee loo xamante la pour Gambien yi la du seen pour seen poos xam nga pour change government lu si dee naxari mooy ñoo xamante ne seen yéene nekkalul réew mi waaye Halifa su bàyyee sax ku ko continuer su dee Halifa lu mu def lu baax la pour continuer loolu du te loolu la. Ah, est que pare ngeen pour euh, ki nga xam ne mooy wutu xalifa parce que moom it already made it clear that bii mooy nekk his last participation ci election euh, phase bu Gambia su bàyyee this year maybe bu fekkee winut mu bàyyi ndax yéen ñi ci nekk pare ngeen pour take over from from him continue the work that he has been doing since 1986 up to date. xam nga man mënuma waxal keneen waaye suma bopp xam ne man Diakhar Doucouré pare naa pour continuer legacy Halifa Sallah pare naa pour liggéey ak PDOIS pour make sure ne legacy boobu noonu dinañ ko continuer te dinañ doxal si dëgg comme ñoom luñ leen tagee liñ man dinaa dundee noonu looloo tax ma ñëw si ronam pour ma mun a jànga suma loxo mun a set ñu nga jaajëfal xam naa dinañ amaat yeneen waxtaan ndax dinañ nekk ak yéen trois heures di na jërëjëf kontaan naa torop jërëjëf Ah, kooku mooy ah, Diakha ah, Doucouré gis nga honorable Halifa Sallah ñëw na su ko defee bu fekkee day waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy waa koñ bi su dinañ fa dem yóbbu rek mic bi ngeen daal di rek dégg li nga xam ne mooy waxtaan bi noonu la rek ba tey ñi ngi nii di dox ngir dem rek fi nga xam ne moo di Bundung Six Johnson foofee dinañ fa daal di rek dem kon su ko defee rek ñu daal di dem ci honorable Halifa sala ndax du ñàkk day waaj a wax. ñu daan ko yóbbu rek euh, li nga xam ne rek mooy di euh, Mike. And ah, listen to you and see that that, that man maa tudd te dañ ñëw tey pour waxtaan ak yéen dama ne dinaa jël mic bi balaa oncle Halifa pour introduce ko waaye pour gën a dëgëral lan moo ñu fi indi tey xam nga Gambia depuis bu mu sasee bu ñu amee suñu independence ba tey. kanami président wecceeku na ñetti yoon waay coono bu nekk suñ kaw ak métit bu nekk suñ kaw astuma jigéen ñi loolu géenu fii te oncle Halifa lu moo promise Gambian si du ne dañoo ceeñ kanam doxalin leñ bugg a wecci si dëkk bii nii te jigéeni Gambia politiciens yi dinañ ñëw use leen ngeen nekk yaay compagnie ngeen leen di taacul di leen toogal waaye suñ demee ba gagné élection doo leen leen Sen sohlay duy faju sen domi sen janga jàng sen seen kaw la dee nekka métit boo Gambia Fini. nii jigéen ñi ñoo feel more than anything else five o'clock so ewo si deka bi ngay doxantu do gis ben goor si kaw tali jigeen ni ngay gis ñu enu sen pani, enu sen pañe marché yi di duga ak gëna dépense mudna dépense mudul yéen ni ngeen try pour sen domi te caravane bi bu dooree man yarowuma Gambia magewuma fii nii Gambia laa juddu waaye America laa yaroo te lu bari daf ma réeroon waaye buñ dooree caravane ñu dem across Gambia leena lu ma séntu mooy am na kër yoo xamante ne suñ toogee añ mënuñoo toog a reer ngir lan ngir soona te soo gisee ku mel ni man ak suma maas yu bari ñu ñëw pour liggéey ak Halifa moom moo eenee Gambia moo mun a yóbbu suñ dëkk bi moo am yërmande bi te doon Halifa Sallah waxkati dëgg la xam nañ ne moom moo ñu mun a yóbbu waaye lu tax ñun lu tax ñun ñu bañ a jël suñ karta jox ko ko ku ñëw fii wax leen ne dëgg la Halifa Sallah waxkati dëgg la waaye du gañe wax leen ko ne dafa fen ngir xam nga lu tax karta bi yéen a ko moom doole bi yéen a ko moom te seen karta duñ ko jaay Gambia bi ni suñ karta duñ ko jaayee saaku maalo duñ ko jaayee wax bu ne dégga leen koo jaayee te man loolu laa am pour wax leen di leen ñaan ne képp koo xam ne am na karta wote nga xam ne sa karta mooy sa baat te soo leen dimbalee Halifa Sallah dem toog si biir dëkk bii nii billahi wax na ne Gambia kenn du ko réccu jërëjëf dem ah noonu la kooku mooy Jaha Dukure ko defee honorable Halifa Sallah mooy daal di ñëw kaddu gi waxtaan ak ah, askan wi ñu ne ñaari façon yu dund moo nekk ci àddina dundi ni nit ak dundi ni fas bi di nga war ci koom waane du musa toog laaj boppam lu tax mu nekk ci coono bi ak naka la ci war a génn waane nit am na xel boo xam su nekkee ci coono dafa war a laaj boppam lu tax mu nekk ci coono ak naka la ci war a génn mu mel ni nag soo nekkee ci coono laaju sa boppa lu tax nga nekk ci coono gi ak naka nga ci war a génnee génne nga sa bopp ci kàllaama nit dugal nga sa bopp ci kàllaama rab kooku da war a dem ca àll ba toog ko bokkaatuloo ci nit wane soo bokkee ci nit ñi nag war nga laaj sa bopp lu tax nga nekk ci coono yaay ëmb na doom juróom-ñeneenti weer mu imbi ko ku mu naw yaakaar ne dina toppatoo doom bi ba mu barke nga xam ne su màggee dina mun a jëriñ boppam fomporongo ñuy kilifaam te itam jëriñ réew mu dem ba fenn yaay ja càng mun a tuta fay ba xale ba génn school di jéemaatu jéemaatu dara sottiwul mu dem dugg ci yeneen yoo xam ne yaay ji su gisee rek xolam jeex ndax liñ koy wax ne ndeyam a sëyul moo tax mu mel noonu fekk fekk fekk fekk ñu ne benn doom judduwul bon àddina mooy jàngal nit bon mooy jàngal nit baax dafa am lu manqué looloo tax ngeen war koo xam tey te loolu ngeen war a jóg mooy ne doom dafa am ñaari façon ngi waajur waajur bi ko isi ci àddina ak réewam li tax ñuy dóor suñu dënn yi ne doom bi réew lañu mooy na réew ma daf ñu war a téye ni doom moom mu nekk suñu waajur réew moom moo ñu war a jàngal moo ñu war a jox métier moo ñu wax la jox liggéey ñu mun a tekki ci jamono su waajur wi defee lam man te réew defu lam man betee xale bi du mun a tekki bon nag lu tax seen réew betey mënu leen a génne ci coono ñu ne ca doxalin ba doxalin boobu itam mun ngeen ca dara ndax yéen a yore baat yéen a yore doole ngeen déglu bu baax ne ñeneenti fan ci décembre da ngeen a war a dénkaane si seen baat ak seen doole nekkul ne da ngeen a sànne ji karta da ngeen a dem pour dénkaane seen baat ak seen doole ndax soo jëlee sa fer nga dugal ko ci kees li mu tekki jël nga sa baati doomi réew sa doole doomi réew nga dénk ko kooku keneen bo dénk ko bosam keneen ñoo dénk ko bosam ba ñu ëpp ci réew mi dénkaane seen baat ak seen doole benn nit mu ëpp doole ñëpp ëpp baat ñëpp dal di élif réew mi ba pare itam nag yore seen kees ku nekk ci yéen xam na ne kër gu amul dapaas tas réew yi tam su amul dapaas dafa daanu bon nag réew dafa am dapaas te dapaas ba ca loxo président la war a nekk ñu ne dépassé at mi ñëw ki ngeen a tànn mu nekk président ñu ngi koo dénk 23 billion ci làkki angale ñaar fukki junni ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci woon ne lii moom lañ bugg a doxal suñ ne dañ war a defar yoon wala dañ war a isi milling machine wala loolu luñ soxla rek ne loolu lañ bugg a defar mu mel ni ci at moomu dinañ ko xayma seen ndax alal bi nekk ci seen kees gi mun naa isi loolu ñu doxal loolu su alal ja manqué nag kees gu mag ñi nga xam ne ñun ñëpp suñ alal moo fa nekk at mu nekk dinañ séddaale li nga xam ne mooy dem ci région yi li nga xam ne mooy dem ci municipalité mel ni KM ak ak ak mu mel ni dinañ leen jox ku nekk sawaar pour lan yow woot bi li nga manqué ñoom su ñëwee dinañ la ko mën a matta su ko defee juróom fukki at ak juróom-benn su fekkee ne seen gox bi nii la doon doxee ndax dina mel nii tey xam nga ndax yéen a dégg bu baax a baax bon nag doxalin moo tax seen gox yi mel nii doxalin moo tax coono gi nekk ci seen ceeb yi bon nag foog ñu wëcci doxalin moo tax ñuy wax système ci doxalin bi ñuy wëcci nag mooy tax seen kër yi am lu ñu war a dundee seen mbedd mi am lu ko wara a topp pour mun a isi doxal nga jàllale juróomi at nga jël ko compte seen ndax wax ak jëf su wax ak jëf keneen loolu mooy ak doom yi rek wane soo ma tey ma dal waxtu oto jotee ngeen nekk seen àjjana Thank you. bon nag ñaari néeg yàngoo caabi baa ngi ci seen loxo bunta bi jogaale ñaari néeg yi mu ngi seen loxo benn bunta bi kaso la kaso ndóol kaso ñàkk kaso coono kaso noteel kaso réer beneen bi néeg pour teddal ñu fonk nga am aafiya nga mun a nekk ci leer léegi soo jëlee caabi ji nga tëj sa bopp ci kaso ndóol tëj sa bopp ci kaso nooteel tëj sa bopp ci kaso réer kan nga war a sikk ci àddina bon nag ngeen bàyyi seen xel ca lool jërë leen jëf ci dëkk amulunta ko moo ñalta kalamutala ko be sela kala pour ko ñin wote o men be keerin dalilole ba koto foro la banku la woto kilingo ba kan ila banko kan kilingo sembo ila banko kan ani bankuɗiya sembo wo kangol vele kanyant kili man fesi ya kili bawo mo kili o kili ka karte kisi kili la so ni ba di la mo la ka fala mo la faran e ka ke suturo kono woto fatam fan soti

sañi alyaji aɓe ñamen korda fele dindigol fele ela ñatata bele iɓe dow kosoto la ñaadi iɓe balu la ñaadi iɓe putu la ñaadi allah ñaaɓe looriŋoole kan woto to dal man tara tama kan ñaato jama ɓe sey kan ko don man ndin wole wole wole kanata woto ka caamumente al ñanta men jiibel wala mu tamandi ña men jaalon ko abe jang sanji tan lulu anin woro wala yakende hani kabi kesma mambo jabat otonto ko wo tamandi ñaale ñanta falinna ni ya tara nun ko banko be tamakan a ñamale ni mentengol dow kuuta facteur ɓe sotola min mba la kaake menten koto jabo dow kuuta iba dundila e boto kono ka topoto pour akana tinya pour ya wafi molma ko kumbe yalanko banko eh, lafitala pour domoro yo soto banko kan iba dokula ifangola fakte yo soto pour ka topoto bari wo man tara kering wala ya kendi doko man tara kering wala ya kendi fondin kelka jangula kata tubabdu pour que doko nyeneje bari wole beje wo doko sifale beje woto ntolbe men fokal ni mo nata jan ka foko sanji kiringo kono abe fakti yo lole nyimban ko kan ka doko di fon salon ko abe mor ne ne ka bari ferobe je min yalon ko isi foariya bay yekkato ke pour ko wak fakti yo lo wobe kala nyaade ntol ko bankola aran keso kodo membe je ibe talato tala ayke fohariya bayrangot woto ni kete senelat walla naakkiɗo kulla lafa jambando la toro la sere jorongo la tanoje ya soto ye do ya yamurundi keso kono ko ususu kat ken ñaame te ko kake kiling yata ka ke do kuranga banko la nafulo fana si keno wo do kuranga bawo te ko lam ntol bela ko moto ni be marché to ibe wafela isi ko do soto ñaje kela wafiro lafa pour saje ko isi munafan ni ya atali soto wo ku kilingo ataliyel jibe dono iɓe seere ɓayto ɗin ndinkiraɗo bade ni la machine o bondi la aliyaje toroɓe mbe je bade dulaɗoɓe je ika wis wis ron machine o ɓeye bo woto wositano wo banto ka koɗo soto ka wo mo soto ka do ko kamurindi keeso kono mo men yalon ko a lafita milling machine na pour ka dokundi ka foriño dada wo be sitano ka machine o soto woto kaca sutiya kamma e jama lokko ɗo isakata aye futa jama ɓema pour mum kamma ye dow koke ka woko ɗo wurudi kriso koɗo isajo e ko bankosi yirwoso wole mu tambarde ñaati doyɓe men fo kan ko wole ɓe banko wondila wole ɓe foharya bayal fula jango muniya kendi sañdi tan lulu ani woro ñing silo hade kabi aɓe tenn an mo womo men ɓe ere kansol aɓe kala tenni fo tamande ñaama yo falin ni tamande ñaama falin yo kungo dolo falin fente fente bolaje mune ya kendi ala ya kalamuta ko kordate ɓollunola dapaso kon woto jin wooɗo aɓe ɓollulano ñaadi dapaso koma isi waddi bolo men comité soto bari naman dapaso soto amundu ko atetanoon oton toon ko pour ñin yebo ko ko men yalon ko ñoɗo to ñiñala komo ayesoto woto korda jol men ɓe jam laysinol men ɓe jo kan bitikol men ɓe laysinol jo ataliyel men ɓa jo garasol men ɓa jo marché men ɓa jo wo ɓe ñanta tarala wodola aran keso woto sango wo development committee wo si wo siñolu wolle ɓe siila ka kacca to silol le ñanta dadala to milling machine le ñanta sotola Ko me ya lon ko ila fitala inyanta fula wo ye jibe ye ta ye kodo yinka ka jibe fo wo kodo sa sotondi na sa sotondi no aye soto na ma sotondi no oto sañi bankola kes bato wole nyanta nala ka lankango ke ñaadi wole nyanta talaro kela region o region bala ta soto municipality o municipality bala ta soto la bankola aran keso pour mun kamma wo municipality ni wodlafite kukela ala bulo man, man, ma koɓen woto isaje ko wo municipality sina kadunga koto ka lankango ke pour assistata non woto sanji tan lulu anin wooro ni bankoɓe tama kan ten fo na bankoɓe kele ten woto alñanta wole kalaŋo tan tamande ña woleya kendi na silol be ten tamande ña wole babonde bari ni mo la carte question la ni yo belo ta ya jolong wandi keso kono wo yemen yitandi yele di ya kango ta yele banku ya sembole ta ka karfo o ya ke wo do fanan ke ko mool mel siata ñim banko kan yele banku ya kango ta yele bankude ya ta ka karfo mo ay ke sembe tiiti ke kang titi ala kango si wara mo bele ti ala sembo si wara mo bele sembote na la asi asikima e kongo kan ite kilingila kafo fo nte kay mo do balesi don nte kay kamtenna sembetenna ntekay musolete do motintenna sanyikay mambarin soto mambarin kesoto ntekay ntekilille be duniya kono be batari so be bata kumbo ntekay mbal koma ya tarakom mbal koma tarakom mbal koma tarakom feedum ila habro kodo batako woto woli ñanta tambila sañ karon ko allah maringol allah marin kewol woli mu allah bankoje allah naafuloo ɓalle baa ɓulu wole ñantemowol bonde bare woote keenoola allah keebaaro kooma ko fulale ɓe jeye ise wote o ke dalil o kamma nako malabon o wala yaa kenniidi yaa kamma ni yaake dalil o kamma sañji luulu isiela konte ɓoro keenoo ta jiibe fo kuma kan woni keebaaro kete kelinde ni kuma kan woni keebaaro fotañoo kooma yo bonde je yo seena bare ni ye wote o ke niidiya kamma eɓe niidiya marrolo lesa toon ni e miɗiya e marano soto eɓe fola ila naafunolela mo kote mba taala ka kaate ye faala nannata ye sukur boto ñinin kaabulu ye mande boto ñinin kaabulu asaadi aye ta aye balu ala duniya ardana kono iteye continue ye tara ele duniya jahannama kono wona mo duniya jahannama te ye wulubata kono yemem bata kono ye bata kono yefa bata kono yerdiŋol tu bata kono woye min bata kono peema bata kono fa bata kono manima bata kono fa bata ele bolo nafale woto bum fulale be je anin caabo anin bunda wobe bulule bum kiliŋ mu kasolete fo hariya la kaso ya la kaso filo la kaso wodo mo buŋoleti dahabum bum faharumo so sañi ni yela caabo ta ye fang soron fo har yala kaso kono tilimbalo yala kaso kono filola kaso kono i jumale jalay la alni mbar am bu kanam ji janjam ñun yëpp dégg nañ ko waaw ñun yëpp nag nañ xam ne élection lañ jub si ay fan rek a des ñun yëpp war nañoo pare toog xelaat bu baax kan la ñoo dénka suñ karta saani wuñ karta dañ koo dénkaani ñu kan la ñoo dénka karta ba pare tamit ñu meeg soo ñu suñ waa kër yi ak suñ dëkkandoor yi yëpp wan leen ne ah, moo nekk yoon ñu jaar ci yoon boobu noonu ba pare moo nekk brown xam naa ne kees yi bari na waaye brown moo nekk couleur parti bi sokola bii nii moo nekk couleur parti bi ngeen xaamee ko bu baax waaye ñun ñëpp ñu fexe nag génn teel a joxe ji suñ karta dénkaane ji ko Halifa Sallah jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu di leen a xamal ne fii la ñoo na ñëpp duga Bojankunda ñu añ na ñëpp duga Bojankunda ñu añ waaw jërëjëf jërëjëf ok ñu duga Bojankunda système change système waaw sumam um, ku kupalon ku jama muji jamna awa halifa salla apulonya erege bu gale be ku seka am um, bu jupo jupo fam fam babe di am um, esuke ye yeti gambia an wangole preni di kak am um, ci ay yokami am man manku leb ananu manje ngola preni a uh, di bugala bu la banko moña muji pam ngolo sankana di inyaman baya yabo na amareka turbe aji numbe njai waaye yaabooy tey gis nañ ne yaa ngi génn si fii nii toog fii nii ngir déglu Halifa Sallah lu mu jotoon wax ban yëg-yëg nga am tey ni am pour toog fii di déglu Halifa Sallah naa kontaan ci moom ndax lim yàgg a wax te nit ñi nanguwuñ koo déglu waaye nag ñun ñu ngi koo déglu ñun ñi toppa ci moom ñun ñu ngi koo déglu ndax Halifa Sallah bu gën a réew mi génn ci coono ndax réew mi sonn nañ ba yaa Yaya Jammeh nekkee coono bi lañ nekkee woon ñu xeex ko be génnee ko defe ne Adama Barrow bu ñëwee dina def lu tane li ku def Adama Barrow moo gën a di njaroo si Yaya Jammeh ndax fi mu nekk nii suñu réew mi lu ko gën a naxari soo wàccee xaywee bi jeex na amatuloo yoon lampa yaa ngi karaj karaj doo am lampa am na sayit yoo xam ne sax dinañ am ñetti fan duñ am ndox lopitaan bi amul garab soo demee buñ la mayee garab ñaareeli garab ba ñetteeli garab ba dangaa dem jëndiko ko kon loolu ban njëriñ la ñu amal dañ doon dàqa ndóol te fi mu nekk lañ gën looloo tax ñu bugg Xalifa saala pour ñu jiital ko ci réew mi wax na ne ñu moom jéem benn juróomi at rek dina réglé waar réew mi ba mel nañ bugg a nañ bugg mu mel ko looloo tax na ñu toppe ci Xalifa Sall pour bugg a nit ñi xool bu ñu kenn nax nañ xool ñun doomi réew mi lañ amuñ feneen Gambia lañ am nañ bugg a bugga bugg suñu réew looloo li am solo ku ci buggul sa réew nag ah yaa ko yëg waaye Xalifa li mu war a wax ñu mu ko koo wax waxtu wu nekk nit ñi nag ñoo déglu wat waaye mu ngi wax waye nak at ni mom buñu ñu xasee ci mom rek jeex na duñ jóg ci coono dund ci coono de ci coono gi mo bañ noonu dinañ ko def inshallah ya ba gis nañ ne am political parties yi bari na fi si bir Gambia te ku nekk bala nga tok di nga ne di nga def li di nga def lele ndax yam am ngeen gom gom bi ne Halifa Sallah su toge lu wax dina ko def ndax dina ko def. bu baakha baax am nañ gom gom bi ne wax bu toge dina ko def inshallah di saaf nako niti deugala xamna lu war julit la du wax naxe waaw. wax waxeet lu jëkkoom lum ñu musa wax rek gis nañ ko juróomi at yu ne lum ñu musa wax rek teg nañ ci suñ bopp looloo tax nag nañ topp Halifa Sallah bem yóbbu ñu fi ñu ñu àggaa moom loolu rek a am solo jërë ngeen jëf. waaw ah, ok yaa booy jërëjëf ñu waxaat rek <laughs> waaw gis nañ ne gars ñu ngi daw man ko gis nañ ne gars ñu ngi daw rek ma bàyyi leen rek ak am garmi rek mu joto na wax ak yéen si lu jotoon a am fii. jërëjëf euh, Binta jërëjëf yéen ñu seetaan Gambian Talents euh, TV euh, ñi ngi fi nga xam ne mooy Bundung Six Johnson gis ngeen ni nu mitin bi doon dem benn sport meeting la boo xam ne xalifa Sallah moom loolu stratégie boobu la lay def mooy sport meeting lay def léeg-léeg mu def rally waaye lu ci ëpp sport meeting lay def rek ndax ngir di mën a dem ci yenn gox yi di dugg ci yenn place yu bëree bëree bëri su ko defee nag fii la ñu war a añee dégg ngeen announcement bi xam naa ne loolu moy tax dinañ def very short commercial break su ko defee nag next uh, uh, uh, destination nag dafay nekk fu ñu war a defee di meeting mooy London Corner waaye balaay boobu dinañ dem Bakoteh village ak yi ñu yeneen bundung bool bu ñu jugee foofu nag rally bi dinañ leen ko woon live incha allah dara rek du leen ci daal di umpu waaye fi mu toll nii fii la war a rek daal di añ dégg ngeen li Khalifa Sall wax dégg ngeen li nga xam ne moom la Jaaxa Dukkure wax dinañ leen wan lépp incha allah jaa ngeen jëf ba ci kanam ngeen ci ànd ak Gambian Talents TV Mouhamed bay Garmi. a ah, Binta Badji ak ki nga xam ne moo di Hazali jaata ak Moussa Diatta su ko defee rek ñu def commercial break and we will be back soon